bari lool ay sénégalais yu bari lool mujjee nañu nekk victime ci moom ndax taxawaay bi nga xamante ni mu daan faral di am waaye tamit ñenn ci ay doomu aadama yi nga xam ne jot leen la jural ay jafe-jafe yu mat sëkk ci seen ëllëg ndax ay promesse yi nga xamante ni leen daan ko daan defal te tamit mosu ko tenir benn yoon moom mi nga xam ne moo làqatoon ci ginnaaw ab compte Facebook boo xamante ni mu ngi ko daan joxe tur bi moom ñu dal rek jukkee li nga xamante ni moo di madame Dior madame Dior boobu la ñu baree bari def nañu ci moom waaye nag mujj nañ ko tegandi loxo moo di sax laata loolu daal di am yàggoon na lool am ñoo xam ne jot nañ ci souffrir benn ci as ndaw di nettali anam bi nga xamante ni moom la dundee ay jafe-jafe ci kanamam xam leen bu baax a baax que ni ginnaaw bi ko dalee di dikk li nga xam ne moo di ab liggéey mu rek di maase ay jigéen ñoo xamante ni dañoo wan lor liggéey bi ni mel mu daal di ko jàng noonu ñu daal ko promettre waaye tam jox ko ab rendez-vous fa nga xamante ni moo di ci Kër en face supérieure marché bi nga xam ne moo di Auchan noonu mu dara teew ci bërëb bi kenn koo xamante ni moom moo supposé nekk ab doom ci nga xam ne moo di madame Dior moom moomu la si jëm boppam moo ko doon rek maanaam waaye ak lii ba mu jox mu daal rek bañ ngir dem ci boobule bërëb ginnaaw loolee bi mu dalee ci ñibbi moom si jëm boppam ko contacté wàll bi mu ko contacté ci yónnee tamit ñu waxtaan bu jubóo mu daal di ko joxaat même rendez waaye nag gi la yoon waa ci bi mu wala soxna si amuk yaakaar ne amaana soxlaam daana faju ak liggéey bi xam ne jot ko soxla ci loolu muy daal di rek yegg si waa ji daal di ko dugal ci benn kër waaye nag nit ba mu ko mujjee yóbbee ñu da daal di rek menacé ngir daal di rek maanaam ko si ak moom ci anam boo xamante ni doy na waar lool waaye ci loolu soxna si dana dem ñibbi ca lendemain moom madame Dior daal di ko ngir xamal ko ni ko am na ab vidéo boo xamante ni mu ci doon amal ay rapport sexuel ci anam yu doy waar lool te vidéo bi ni mel moom ak doomam ko sékk te pare na ngir rek daal di ko sur internet ba muy nopp foofu supposé doom ji moom tam woo téléphone ngir bi ni mu envoyé ay koppar laataa ñuy si ban yooyu vidéo ci internet bi lu toll ci fukki junni suñu koppar mu mujj leen envoyé via Wave waaye loolu a ci loolu tamit dina décoté ak loxo moom mi nga xamante ni moo di waa ji mujjee affirmé ni moom moo di Pésido bi laaxatu ci ginnaaw contre madame Dior boobule li ni mel nag muy incriminé ay nit yu bari lool waaye déclaré li nga xam ne mu di boobule compte faux compte Facebook la ak WhatsApp business en ligne mu def fa ab numéro tigo dellu si waat ci li nga xamante ni moo di évasion xéeri ak victime yi nga xam ne jot leen a am moom daal ab ordinateur portable moom la yor daal di ko laaj ci néegam boo yegsee muy sekk ak yow di ko filmé waane yooyu di ab vidéo boo xamante ni bu ko defee rek lay jëfandikoo ngir rek daal di ci utiliser na mu am ginnaaw bi ñu ko interpellé ci lañ ko daal di tegal di loxo membre groupe yi ni mel ñoom tamit ñëpp dinañ leen dara teewlu di xaarandi amoon lu toll ci 34 participants maanaam fanweeri nit ak ñeent ñi nga xam ne jot nañ cee bokk xaar nag wane ci mujj yi gëtam ci ëllëgu nga xamante moo di madame Dior bu bu leen jëfi ni ñaaw ci ay jigéen ñi nekk victime am wa tamit di am ab te ndax sàkku yi nga xam ne jot na ko defal ci seen diggante di leen dig loo xamante ni dëppwul ak yoon